askan boo boo gis rek. Hmm. Ah, dafa mérité wu jiit yi mu am. Hmm. waaw aussi il faut que Sénégalais yi bàyyi ci xel bu baax. Hmm. ki ki ñu jiite ëllëg. ñun ñoo koy tab ñun Sénégalais. ça c'est la c'est ma première observation sur ce fait-là. ok deuxièmement mooy que ni euh, bon yow da nga def hypothèse que man dana gagné réew bi mën na gagné man ñaanalu ma ko Sénégal. ah ndax lan. ah ñaanalu ma ko Sénégal parce que damay xool nit ñi seen seen seen carrière seen taxawaay euh, et cetera parce que réew vraiment c'est pas une boutique du quartier à gérer c'est extrêmement important il y va de notre de nos avenirs ah suñu avenir doom sët de notre stabilité Sénégal aujourd'hui bu ñu koy wax dañuy foog dañuy tiitalaate mais vous vous êtes des journalistes vous savez dans dans quoi est assis le Sénégal hmm. Sénégal mu ngi jàkkaarlook ñoo xam ne aujourd'hui ñoo ëpp doole suñu réew yi en termes d'organisation en termes de moyens financiers ñooñu nag ñaar la moom daaw mhm. li ñu soxla dañ koy am ci contrat parce que wañ nañ sa loxo wala ñu jéeme ko amee neneen maanaam dañuy tas sa réew yow doo tal leneen lu dul sa bakkan ñoom ñu jël li ñu soxla gaz bi nar a ñëw fii waroon tàmbale at bii passé di dugg suñu budget mhm. gars yi ñu ngi voilà xam nga rek ñu ngi kii di ko reporté di mhm. reporté loolu mu ngi à xaw ma dix-huit kilomètres xaw ma ci géej gi de la côte bu ëllëgee yàlla tere tereti ko ñun ñu nekk fii di xalaatal leneen lu dul suñu bakkan xam nga ni foofu bato yi danañ fa nekk. di ŋàcc li ñu yor di ko yóbbu ñun ñuy reyante fii loolu nag soxlawuñ ko fii ci réew mi moo tax ñun li ñu boobu ba léegi ñu naan loo mënti am ci Sénégal lu la yàlla daf mën a defal fii li ci ëpp mooy jàmm d'abord jàmm moo xam ni loolu la xam ñun ci la ñu la ñu mën a dunde loolu bu ko buñ ko amul leneen richesse bu fi ñëw on va pas aujourd'hui